من الواسع الخفيف بجاه المغفر salaamaaleykum mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ginnaaw bi ñu leen nuyu ziar leen jox leen seen wàccuwaay bu baax baax comme niñ koy defee chaque jour rek tey jii ñu déplacé wu euh, ñëw fii si dëkk bi ñuy wax Darou Sam daaru Sam nag képp ku ko dégg xam ne maanaam région bu Thiès la bok département Tivaouane euh, te Darou Sam ku ko dégg xam ne waa kër sëñ ma ma Samba Diop Sam Euh, ñoom ñoo fi nekk ndax dëkk dëkkam la tey jii nag ñu ñëwoon fi ngir wan leen lépp loo xamante di moo ngi si dëkk bi si loo xamante ne maanaam cosaan la si loo xamante ne moom moo fi dox wan leen jumaa yi nga xamante ne defar nañ ko fi dinañ ànd nag ak magi dëkk bi ñu wan ñu li xam ne moom moot nekk si biir dëkk bi kon sama gars yi bu ko kenn topp leen ma ma wan leen lépp loo xam ne moo ngi si si biir dëkk bi euh, Daaru Saam sëñ Massamba Diop Saam moo ko sanc ci ndigalu sëriñ Touba at miñ ko sancee léegi nag yaakaar naa ne Mm, wax nañ ni toll na ci téeméeri at ak fukk ak juróom-benn jëm juróom-ñaar li waral sanc bi dafa am génn góor gu nekkoon fii ci saam saam Sarr ñu koy wax sëriñ ñu koy wax sëñ saam euh, sëñ Mor Batoor sëriñ Mor Anta Sali daa ànd ak sëriñ Touba di fi ñëw fekk sëriñ Massamba Diop bi daan bàyyi ko ni di am téere bu mu yërlu ci sëriñ Mor Batoor Sarr léegi nag foofee la sëriñ tubaa xamante woon ak sëñ Mor Boutour saar nag léegi nag moo waral bi nga xamee ni nelaw na euh, te xam ni sëñ Tuubaa xam ni sëñ Mor euh, nitu yàlla la woon biñ ko fi dencee mu ni sëñ Massamba Diop wattul ma bar bu sëñ Mor Boutour boobee. waa fii ne kër kilifa yi moom defe naa ne neexutu lim ndax bari na ndax képp koo xam ne aju na ci sëñ Massamba Diop Samb rek am na fi pàkk wala mu am fi kër. maa du neexal lim waaye mbooleem njabootu sëñ Masamba Jóob si am gi daal eh, kenn ku ci nekk am na fi kër ñi amugol kër it ñi ngi yéene jumaa ji itam eh, sëriñ Abdul Ahad Mbàkke moo digaloon sëriñ Basiiru Jóob mi nga xam ne moo doon deuxième xalifa sëriñ Masamba Jóob Sam mu eh, defar jumaa ji waaye nag bi mu ko defee jàkkale woon ci xalifa ak sëriñ Abdourahim xalifa Jóob ci la am ndigalul defar jumaa ji Serigne Saliou may ko joxe ndigal ñu ubbi jumaa ji. ñu ngi tàmbali mbayum noor mi fii ci daru Sam 1993 93 la boobaak léegi ñu ngi bay mbayum noor euh, xeeti mbay yëpp nag lañ fi bay mbay ndax yëpp fi nangu euh, liñ bëggoon ku ci jàppale mooy ndox mi gën a dolli ko mooy sa doo bu mag a mag a mag boo xam ne. fépp fu waay mën a lu tool sori sori rek boo fa yóbboo tiwoo rek mu man faa liggéey ndax si dafa néew doole ba nga xam ne bañ dalee bay fii rek yàgg na tool yi fi sàppi na ba nga xam ni daanaka boo fi bayee tam mbay mi du am solo ba ñenn ñi sax ñu ngi dem ba ne xëy dëkk buñ féeti nii di di di fa liggéey léegi nag buñ gouvernement bi mën na nag jàppale nag dina yombalal ndox mi gën a yomb ak jiw yi nga xam ne mooy jiw yi nga xam ne qualité lay doon ak itam tracteur boo xam si danañ ci mën di Eh, tool yi di ci mën a eh, bay ci lépp lépp maanaam di ci bojj di ci mën a def lépp loolu danañ ko bëgg lool fii bëgg nañ ko fi lool fii ci Darou Sam école francais am na fi maanaam ñuy jóge fii di jàngi waaye dëkk bi bi ngeen di jëkk a jot muy dawax foofu la école bi nekk mais biir Darou Sam ci boppam moom euh, ñetti daara moo fi nekk daara alxuraan moo fi nekk ak euh, école boo xam ne itam formation la maanaam wa alphabétisation lañ fiy jàng. am na courant nag depuis maanaam yàgg na war naa mot fukki at ak lu fukki at ak juróom war ba mu amee courant lay war na ko mat ci jamono Abdoulaye Wade ci la euh, ci lañ amoon courant ndox mi itam vision mondiale moo fi bëndoon euh, forage yoo xam ne pompe manuel lay nekk waaye nag bi nga xamee ni dem nañ ba dox ab diir benn ONC bu ñu moo ñëw montrisé pompe pompe yooyu euh, ñu commencé nag di liggéey ci maraîchage bi nag di liggéey ci mbayum noor mi ba dem ba def ko ci courant bi. ba barab yi ngeen gis foofu ci biir barub sëñ ma Massamba Diop ci boppam moom moom moom moom ngeen jëkk a jot waaye nag ci ginnaawam doomam ji ñuy wax sëñ Bissirou Diop ak doomam ji ñuy wax sëñ Fallou Diop ak doomam ji ñuy wax sëñ Moustapha Diop ak doomam ji ñuy wax sëñ Mourtala Diop ak doomam ji ñuy wax. sëriñ Abdou Samad ak rakkam sëñ Abdoulaye Diop mi nga xam ne mooy sama waajur ñoom ñoo ne foofu. màggal gi ñu fiy màggal at mu nekk màggal gu mag a mag a mag lay nekk goo xam ni e, boo fi ñëwoon mm, da nga fa gis mbooloo moo mbooloo moo xam ni e, du du bari foo koy foo koy foo koy foo koy foo koy gis waaw. man maa ngi tudd Fallou Diop nekk fii ci Darou Sam ñu gën maa xam ci Fallou Diop masjid moom mooy sama tur bi nga xam ne bu ñu ma ci woo ñaari ci ñu baree bari dinañ ko xam. waa kay li ko bind mooy poste de santé la boo xam ne li ko fi indi dafa bees waaye cosaanam dëgg-dëgg moo doon dayre bu ñuy wax daayira xidmatul xadim lenn ci daayira yi suñ ma Sàmba Jóob Saam nekk ndakaaru ñoom ñoo xalaatan ni Daaru Saam gis nañu ni faj fi ñuy fajo war na fee am ñu daal di def waxtaan ci seen biir daal di def seen plan def yëpp indil ko sëñ Abdou Wahab Jóob mi fi nekkoon yal na ko yàlla yokk ay maqaama fa mu nekk mu ñëw ànd ak sëñ Abdou sëñ Moustapha am sëñ Abdou Khadir ñu teg xeer wi bi ñu tegee xeer wi ñoom ñu mool fi lu war a mat sept tonnes ciment waaye bi ñu doxalee tuuti amoon gàllankoor goo ñu taxaw léegi bi ñu taxawee nag léegi état bi moom jóg maire bi nii moom da koy jël pour jàpp ci état daal di koy jël moom itam def fi batiment bi nga xam ne mooy batiment post santé bi bàyyi ko noonu nga xam ne def na fi euh, post bi rek waaye li muy war a àndal ci logement yi yëpp amu fi woon la 11 juin ci lañ ko war a inauguré ànd ko ak autorité yi bu ñu paree nag ci la ñuy fas yéene euh, wubbi ko mu continuer nag ñu ciy liggéey loolu nag loolu moom lañ manqué gun fi ñu toll amaguñu ko ndax li nga ndax li tax mu manqué mooy état moom moo ñuy affecté amaguñu amaguñu ay ay docteur mooy infirmier bi fi nekk ay sas femme ñi ciy jàpp ci wàlluk santé ñooñu amaguñu ko maire bi diñu paxankale indi na fi valeur toll ci 10 millions ay lal ak ay seize yi muy àndal ak taabal mooy matériel nekk foofu ci biir poste bi yàgg na fi lool ñu tëj ko fi waaw matériel bi moom visité nañ ko bi ñu fi ñëwee médecin yi xool ko xool lu fi manqué ñu war koo bind waaye binduñu woon lu am solo lu fi manqué te lu fi manqué woon jën nañ ko parce que ñu daan fajoo dañuy tumuranke rek dañuy jël ay sareet léeg-léeg jigéen mën na fee soxna sax mën na fee toll lu koy yóbbu dañuy àbb oto wala ñu lijjanti sareet yóbbu ko fële bu ñuy wax mbaqiis wala ñu yóbbu ko bu bu kéem yóbbu ko Kébémer wala ngaay mexe amagul ambulance moo looloo tam ñoo ngi koy lijjanti rek bàyyi defal yàlla yoo xam ne sax ñoom buñ ko déggee mën nañoo wut ambulance maye ko réew yëpp lañ gis yu noonu muy am yi nekk ci bitim réew di man di jox ay aide ay dons yoo xam ne dañ koy jël waaw wàllu mbay gi ni nga ko gisee noonu mooy forage bi nga gis nii amul doole tool yi nga gis nii ñu wër nii mooy tool yi fi nekk gone yi nga gis nii ci dëkk bi ñuy seeni moroom nii ñoom itam ñooy ñoo ciy nekk di dóor waar comme ni ñu koy waxee bu ñu xëyee ñoo ciy dem di roose ji ci tool yi di ci bay nga xam ñoom itam bu ndox mi gën a bari tool yi fii yëpp suuf la dara nekku fi te defuñu fi dara fii boo génnan fii da fi hectare yoo xam ne si dara nekku fi te mënuñu faa bay noor ndax amul ndox waaye bu ñu amoon ndox mu am doole mu mën a dem ba foofu boobaa fii yëpp dañ fiy bay mu gën a ndax dañ fi bay seeni soble di fi bay seeni tamaate di fi bay li aju ci mbayum noor yëpp euh, di ko ci def di ci góor góorgóorlu nga xam ne ay góor góorgóorlu lañu gone yi ñu am jom lañu loolu itam état lañ ko ciy laal mooy mu may nu forage boo xam ne si dana ëpp doole forage bi fi ne bu ko defee ndox mi dana mën a baawaan fii yëpp ba ñëpp mën a am li nga xam ne moom la ñuy bayee waaw kàddu soññe yi nga xam ne danaa ko joxe mooy ci biir réew mi ak sax laa koy wax ndax duñu boo yemee ci dëkk bi nga dëkk rek boo leen soññee ba ñu baax te yeneen dëkk yi itam góorgóorlu wuñu daanaka lépp du dox li développé am réew mooy ñëpp dañuy bokk nekk ci jaar ci ak njub bu ko defee gone yi bu fekkee jàng nañu ba pare jub am xam-xam bu li ñu bëgg a liggéey dinañ ko mën a liggéey ci réew mi état yi li mën a jàppalee gone yi mooy fexe ba gone yëpp am am xëy mu ñuy yëngoo di ca am dara bokk na ci li koy gën a mën a jàppandal fi mu toll moo doon wàllum ndox wàllum ndox bu yaatoo ci biir ci biir euh, euh, Sénégal dama ko doon wax ay at yu yàgg ca gannaaw lu jiitu président Macky Sall di ñëw nañu fexe ba ndox mi ci suuf ñu génne ko ci biti nit ñi di ci mën a am lépp lu ñu bëgg a def loolu moo ñu mën a tax ñu war a développer mais loolu loolu xale yi bu ñu amul pexe dañuy lycée di dugg ci gaal yi di am ay problème di dem Europe dem fa ne ñun ñi nga gis ñu man def naa 30 ans États-Unis dund naa état 30 ans États-Unis kon xam naa lu baree bari ci yooyu waaye yàlla du suutaal na ma mosuma am ak ñoom jafe-jafe ndax nit ñu baax lañu ci gan aw ma fa benn jafe-jafe ba ni ma ñibbisee nii euh, macha allah kon looloo tam damay dénk gone yi loolu nag la ñuy wuti foofa ñu fexe ba ñun bu ñëwee fii di ànd ak ñoom suñu expérience ñu déglu ñu ànd ak ñoom ñu liggéey ci réew waaye président tam jàpp ci loolu ak gouvernement bi bu ko defee ñun loolu bu ko indee rek réew mi yëpp dana mën a gën a développé. yaruñu ci liggéey ndax xamuñ lu dul liggéey defe naa bi ngeen ñëwee taxawal ndax ngeen ñu fekkee ñu taxawal euh, benn idée boo xam ne association boo xam ne pour liggéey suñ dëkk la ndax defe naa dëkk lu fi waay munti def ñu lay jàppale lum ñuy defaraat war nañ ci war nañu caa fekk luñ mënul ñu jàppale ñu ci ci loolu la ñuy dox ba hôpital ba fi nga xam ne comme ni ko chef de village waxee kii état moo ñu ci jàppale defal ñu defal ñu ci li ci def ñu ne ah lépp kat duñ ko bàyyee ñëpp kon nañ ci taxaw taxawu ci wone ci suñ pas-pas wone ci suñ doole ba foo xam ne tële nañ faat buñ ko taalee loxo dana sawar ci jàpp ñu ci. li ay moyens ndox mi doy ba nga xam ni danañ mën a liñ mën ci maraîchage ñu def ko ndax maraîchage defe naa képp koy def jiitu woo ñu ci ci Sénégal nag laay wax ko ko fi def jiitu woo ñu ci waaye nag moyen lañ amul ba tax fi mu toll nii ñu bari fi ñu leen di dégg duñ ñu fa mën a dégg kon moyen boobu ñu ngi ciy sàkkoo ndimbal ci état bi. kon ñu dellu siwaat ci nga xam ne moom la ñuy wax ci liggéey bi rek sëñ bi dafa laajoon ni dafa bëggoon a xam. liggéey bi ñun ñu waxal gone yi ak ñuy déglu ñëpp rek li nga xam ne mooy liggéey bi liggéey poste santé bi ñu koy tàmbali le 12 octobre 2022 lañ ko tàmbali. biñ ko tàmbalee liñ ci jëkk dugal ci xaalis diñ ci liggéey itam li may wax ci xalal yu bees yi liggéey boo xam ne bu transparence lay doon liggéey bu leer naññ boo xam ne kenn du ci uppmule ci ñi nga xam dañ ci def seen alal ak ñi nga xam ne si dañ koy def ci ay dépense damay wax ni nii nga xam ne moom la ñuy doxee ci liggéey yi naa ko wax benn kenn ci kilifay gouvernement bi ñëwoon New York fekk fa bi ma ko wanee document yi nga xam ni moom la ñu yorante boobu seen finance dafa nekkoon ci man euh, ba ma ko ni lii mu doxee nii mu ne ma lu ko gën a leer munta am ma ni ko nii bu même gouvernement doon doxee lépp dana leer loolu moo tax ñun tam bi ñu dikkee di liggéey fii ñu bokk liggéey bi ci département yi nga xam ne mooy finance bi nga xam ne moom lañu bokk di ci liggéey ñu ni woon dañ koy def liggéey boo xam ni dara du ci ump kenn te loolu lañ bëgg ñëpp di ko di ci liggéey nga xam ne ku ci joxe sa dërëm dañ la bind liste ko bu paree liste bi ñu yokk liste bi ma yor nii bu ñu ko doon xool nii dañuy gis li nga xam ne si ñoo ci dugal seen xaalis ci liggéey bi liggéey bi fi toll bi nga xamee ni ñu ngi ci ci fi ma toll nii tey jii ñu ngi ci 23 millions 266 mille cent 750 francs sëñ bi loolu mooy li nga xam ne moom la dajale ci nit ñi mu jëm ci poste de santé bi te loolu bu ñu xoolee ñi ko def sëñ bi mooy nekk 653 personnes maanaam juróom-benn téeméeri nit yu teg juróom-benn fukki nit ak ñett ñoom ñoo dugal seen xaalis ci poste santé bi ci loo xam ne enregistré nañ ko te loolu mooy li leer loolu mooy li nga xam ne moom la ñu liggéeyee poste bi mu nekk ci 23 millions yi ñu leen wax noonu 266 mille 780 bi ma demee ci sañu chiffre tam bi nga xam ne chiffre bi nga xam ni mooy ñu indil dépense itam maa ngi ci 23 millions 302 mille yaakaar naa kon sama dépense foofu dana am sëñ saam lu ci yokk tuuti lu luñ ci war a def kon nag ñu jublu nag ci bis bi nga xam ni mooy bisub la 11 la deux mille vingt deux ñu war nag inauguré ànd ko ak autorité yi muy gouvernement bi sous-préfet ña muy àndal ak ñu dépendre ci moom monsieur le maire ànd koog suñu kilifa muy euh, chef de village di Baye Cheikh ak suñu sëriñ kilifa yu baax yi fi nekk ñoom sëñ Saam ak ñëpp ñu ànd ko ci ndigalal Cheikh Abdourahim mi fi nekk yal na fi yàgg te wér bu ko defee ñu ubbi ko euh, tàmbali liggéey bi loolu ci foofu la ñu toll noonu sëñ Saam te liggéey bi euh, loolu lañ ci def ci xaalis mi nga xam ne moo jëm ci wàllu bernde yeeg ñu ngi koy dajale ci beneen côté bokkul ci chiffre bii ma wax nii. jataay bi ñi nga xam ne moom la ñuy doon. toogee di ci waxtaane ci Daaru sàmm ak sëñ ma sàmba ak njaboot gi liggéey bi yëpp rek kenn ci suñu kilifa yi nga xam ne moom moo nekk ci suñu kanam di sëñ soxe bu Jóob mu sëñ Fàll joob mu Seex Masamba Jóob um, bokk ci sët yi nga xam ne si ni ndigal yi nga xam ne mooy jóge ci xalifa uh, sëñ Abdourahim Jóob yal nañ fi yàgg ñoom ñëpp te moom mii la koy jox moom sëñ soxe bu moo koy yóbbu ci sët yi ñu koy jàllalewaat ci daayira yi ci taalibe yi kàddu googu moo ko yor tey jii nag bi ñuy waxtaan ci Daaru Saam mu ñëw fekke ko yàlla baaxe ñu mu ñëw Daaru Saam ñu ànd ko ak moom mu war cee nag sànni ay baat rek ak ñaanal nag taalibe yi biir réew mi bitim réew sëñ bi ci taxawaay yi nga xam ne taxawee nañ ko ci liggéey ñu doon def ba muy yegg nii ñu taxaw ci taxawaay bu bu ama am am solo ci waxuñu ni rek kii mooy sama sëriñ wala fee bokk ñoom dañoo dikk jël jëmmi sëñ Massamba Diop teg ko ci suñu kanam ñun ñëpp ñu ànd koog yéen di ci dox ba mu agsi fi mu àgg moo tax tey jii li ñu ci am ci lu ñu bett la lu kawe suñu wart lañ ci am ndax bennoo gi ñu bennoo ak ànd gi ñu ànd ak jëmmal gi ñu jëmmal Cheikh bu Diop mu nekk suñu kanam may na doole lool ci liggéey bi bañ def ci li ñu ci war def sëñ bi kon xam naa dañ lay jox rek nga. sëñ Massamba Diop lam ñaanal sëriñ sëriñ bi nangul ko ko day mel day feeñ ci jëfam yu bare bare bare mooy ak nite ndax boo seeti dersaam diirub ñaari fukki at yi wala ñaari fukki at yi euh, soppi ko ko boo ni mm, dara ba lu ginnaaw yàlla lu may euh, taalibe yi loolu nag mooy li suñu baara waxaan moom suñu Fàllu Mbàkke ni lépp taalibe li fi nekk lépp taalibe yi waaye fii tam li fi nekk lépp taalibe loo fi si mu taxaw fi rek taalibe yi ñu ngi tàmbali ci kër daayira bi ke suñu tuwaa gi nekk nii ni mel ni mel nii ci diir Euh, fukki at yi rek daanaka ci bi fi xale fi bi nekk boobu benn néegum ñax a fi nekkan képp ak xajma diirub sëñ ma jëm sàmm nekk fi diirub néegum ñax néegum ñax fi nekkan diirub sëñ Abdou Samba nekk benn néegum nekk moo fi nekkan moo leen kër sàmm kon nag bu soppikoo ni da nga xam ne lépp nag taalibe yi moo ngi sant cant koo xam ne am nga ci ci ndigal sëñ Abdou Rahim Euh, mbokki jullit yi mbokki taalibe yi comme niñ leen ko waxee woon rek noonu lañ ko defee ndeysaan ñëw nañ euh, dëkk bii nga xam ne moom la ñuy wax Daaru Sàmm di dëkk sëñ ma Sàmba Jóob Sàmm euh, niñ leen ko waxee woon noonu lañ ko def ñëw nañ war nañ leen dëkk bi war nañ leen itam poste de santé bi nga xam ne moom moo fi nekk nga xam ne jamono ji ñu toll la 11 bii di ñëw lañ koy inauguré kon ñëpp nañ ko bàyyi xel loolu rek moom moo waraloon suñuy tànk fii nii si dëkk bu sell bii nii ndax biñ fi ñëwee wan nañu barab bi wan ñu jumaa ji wan nañu wan ñu poste poste de santé bi wan ñu itam kilifa gi loolu lañ woon pour wan leen ko kon noonu la ñuy def rek euh, di tàggatoog yéen si yeneen i jotaay si yeneen i programme incha allah may ziar bu baax waax sama jënd caméraman Seydina Mouhamad euh, Seydina Omar mu ànd ak euh, Serigne Fallou mu baax mi Serigne Daara bi kon sama gars yi ñoo ngi leen di jaajëfal ba beneen yoon jërë ngeen jëf